production présente. yi boo bëggee xam mu ngi taxaw dëggal boppam. mais combat bi Aliou Seydaa mel ni ko bëgg jeexal mag. waaw waaw ma ngay je ma ngay gaawale atoo ba. ñu ngi lay atoo ñoom ñaar. Issa Sani waat na crochet droite. Hmm. mais dalul. ñu ngi lay atoo. léegi Alioune Seye ko sakkatal léegi. sànni na droite mais dalul Alioune Seye ko sëkkatal léegi Issa riposté Issa sànniwaat na crochet droite mais dalul Alioune Seye sànni na arrêt gauche arrêt droite waa ñu ngi lay atoo ndax fausse garde la. Uh-huh. ndeysaan ñu ngi lay atoo Alioune Seye ko sëkkatal xeex bi awagul yoon. déedéet. dañoo samp jaaga dañoo jegante ñoom ñaar. dañoo jaaga max. walaay dañoo samp jaaga. mais Alioune Seye léegi tànk yaa ngi laalante. Uh-huh. xeex bi amagul solo. ñu ngi lay waatoo dara amagul saal. ndeysaan max soo xoolee ñaari mbër yi. ndeysaan Alioune Seye ma nga jiital tànku ndeyjooram. kii di Issa Pouye jiital tànku góosam. Alioune Seye ki nga xam ne mooy Issa Pouye lu ko xaw a sonal max mooy dafa jiital góosu di xeex a droite day sori ci moom sànni na léegi doo tax Alioune Seye remise lay bëre ak moom Alioune Seye remise day sànni waat na ah door na ko coup door na ko xeex na Issa ngi xeex ak moom Issa ngi xeex xeex bu metti jàppante eh perkit ngi xeex ñoom ñaar Aliou yooru na doorante nañ ah! Alioune Seye door na ko mu daanu Aliou mu daanu door na ko uppercut mu daanu. Aliou Seye la ko mu daanu. Aliou Seye door ne Sa mel nañu doom yi gi noonu Gaston. waaw bu amul benn werante. waaw waaye ñu xoolaat waaw waaw. oh. Ah, dafa fekk loxo ba wër ko ndombo. saa saa cee dugaloon tuur sax tuur bee mooy. Mhm. waaw. est-ce que. mënta ne. mënta la bekaay doon wax daan daan daanu. daanu daaneel. <laughs> daanu da. mënta ne. daanu daaneel mënta ne. mënta ne. ah jël wi leer na nañ. wax dëgg